saraax lañuy def ci ëttu yéenekaay yeeg la journal sunu làmb fësal nekk diggante Ama Baldé ak Gris Bordeaux ca xët wu njëkk ba la fësal na taalub sëll bu ndaw muy Ama Baldé daa di amal taxaw seetlu ci combat ba digganteem ak Gris Bordeaux ñu jàpp ko le 5 février 2023 moom sunu làmb la mu xamle mooy est-ce que bile combat du danger ci Ama Baldé la jàpp mooy Ama Baldé combat yi mu am ak luur yi dafa metti ci moom lool ba nu ca lim sax mooy combat ba doon dox ci digganteem ak nees boobee combat la journal sunu na ci ay na ca na ca doog a Gris Bordeaux nga xam ne loxo yaa nga mel ni fittiwu mbër taaw yi bile combat est-ce que Ama Baldé dina ko mën dékku waaye bu ñu fàtte ne Ama Baldé daal fi ay mbër yoo xam ne ñépp ngi doon wax si seen mën a xeex ba muy dajeeg Malick Niang ak ba muy dajeeg Tapha ñépp dañoo ne woon danañ ko wulli ba mu sonn te yile combat bokk na ci yi Ama Baldé gën wone boppam ñeneen ña war wone seen bopp niki àjjuma ji mooy diggante Papa ak Siteu seen face à face doon régulariser nañ ko nag CNG dana mën dox seen diggante ak préfecture ba lépp mën sotti waaye ñàkk ko régulariser moo tax CNG raxas ci ay loxom ba mu set wecc promoteur ba nag la ko dal mooy ku ndóbin rey samaam boo gisee lu ñul daw ba ñu ko annulé la daal di daw ci CNG ñu daal di koy régulariser ca gaaw-gaaw la ñu waat face à ba jàpp ko niki ajuma ji kon képp koo xam ne yaa ngi doon xaar feesu feesu Papa Sow ak Siteu booye a jàkkaarloog ak lu làmb sport bi fas yéene naa dajaleeg njabootam niki àjjuma ji fas yéene naa saafa wanteeg lamb ji def ak ñoom face à face bu njëkk laataa loolee nag CNG bi fas yéene naa dalal mbooleem ku yëngu ci wàllu lutte simple ndaje moomee tey lañ ko jàpp laataa ñoo jàkkaarloo ministre des sports bu ñu bawoo ci loolee nag ñu nga ca combat yu neexee yu jàpp ci saison bi ñu fas yéene kaa ubbi diggante Ibou Afia ak jeex jàmm niki dimanche bii lañu ko jàpp bi le combat duel des toftal ñu ngi ko jàpp le 25 décembre 2022 boobee moo war a ci diggante Boysil ak ba xam le mooy ne ci la Fourrière nekk daan Boysil rek moo ko ci mën a génne ba mu daanoo ci ci Baye boobu journal ba jàpp na ne ci combat mag Boysil a faje fa combat ba jeexale nag mooy ci écurie sàkku xam-xam bilan saison 2021 la leen defal ñu toll ci 9 combats 7 victoires 2 défaites écurie ndongoloo kenn gisu ko mu nga États-Unis agogo ak Pape Morlo 2 ren kenn xàmmeewu leen bébé Saloum 2 moom dellu siwaat na ren fësalaat bopp boppam caatu kaasa garga mbooyeen dañoo assuré anaconda moom moo honoré écurie ba def deux combats deux victoires jërë ngeen jëf mbokk li moo nekkoon li gën a fës ci ëtti yéenekaay bi ñu leen jox di ba ëllëg incha allah